effectivement am na ay dossiers yoo xamante ne ça a impliqué des acteurs politiques comme c'est le cas actuellement Ousmane Sonko ak Adji Sarr Ousmane Sonko c'est un acteur politique je dirais même euh, incontournablement de fait c'est le chef de l'opposition mhm. pour ne pas dire l'unique opposant alors euh, Adji Sarr porté na ko plainte de prime abord on peut penser que c'est une affaire privée de prime abord mais gis nañ aussi l'implication d'autres acteurs politiques pour renforcer Adji Sarr pour soutenir Adji Sarr la plupart des souteneurs de Adji Sarr des adversaires de Ousmane Sonko. Hmm. loolu rek c'est problématique. de le docteur Alfousseni Gaye dans ses euh, ak li mu wax au niveau de la presse c'est-à-dire moom contacté nañ ko pour mu constater une infraction qui n'existe pas encore avant l'infraction nee ko yaa ngi Dakar waa d'accord soxla nañ la suba te infraction bi amagul léegi soxla nañ la suba infraction bi su boobu ñëwee ñu war koo andi mu kon donc naka ngay xaar infraction dina am suba sans pour autant que yow nga préparé ko. c' est problématique nee naa la depuis Karim Wade euh, Khalifa Sall et doyen Albert a raison que ni mën nañ retourner jusqu'à Mamadou Dia Idrissa Seck Wade ba tey jii ni Ousmane Sonko lépp li nga xamante ne moom la sénégalais yi retenir en tout cas la perception que les sénégalais ont euh, procès c'est une parodie de justice loolu la ñuy wax mm-hmm. on est allé même après léegi ñu ngi bëgg a amnistier donc ça veut dire que ni si c'était dañ dañ duggoon ci procédure judiciaire pour l'argent du contribuable ben du contribuable dërëm dugul et pourtant ñu ngi bëgg a fàtte kaa yooyu mhm. kon est ce que c' était euh, de l' argent public pas du tout c' était de leur candidature parce que après leur candidature ils ont été graciés maintenant que leur influence sur le plan politique au profit de Ousmane Sonko on va les laisser purement et simplement parce que am na si dañ naa la bu ci sax waxati alors maintenant ki nga xamante ne moom mooy daj dëpp gi moom moo mën a jur euh, euh, euh, ultérieurement ci candidature président wala candidat bu mënti doon da Benno Bokk Yaakaar ki ko mën a andi problème c'est Ousmane Sonko donc la procédure aussi bien bii nii que Mame Mbaye Niang ça vise à liquider un adversaire politique y a autre chose parce que man personnellement si benn verdict daanu contre Ousmane Sonko benn question rek laa jot est-ce que dina c'est accélération procédure yi ni muy demee tey moi je connais des gens yoo xamante ne ñu ngi courir en prison def nañ appel dix ans ba léegi woowuñu leen dix ans. Hmm. Pape Cissé Mbaye il euh, am na ci ñoo xamante ne dix ans jugé guñu leen même première instance sax ils sont en détention euh, provisoire ils sont présumés innocents mais pour la première fois de l'histoire judiciaire du Sénégal nga gis première instance ak appel dure même pas deux semaines c'est la première fois moo tax lu ñuy yàqamti procès criminel Euh, gis nañ fi yoo xamante ne pour nga épuiser tous les toutes les voies de recours ben ça peut prendre quinze vingt Barthélémy Dias c'est combien d'années mhm. ba léegi jeexagul. ba léegi jeexagul. revenons voir pour est-ce que Ousmane Sonko dañ ko war a accélérer avant 2024 en tout cas pour Khalifa Sall c'était le cas loolu nag boo ko xoolee di nga xam ne effectivement instrumentalisation justice manque d'indépendance de la justice mën na am parce que il y des éléments matériels yi nga xamante ne mën nañ koo koo defee mooy ne le parquet bi nga xamante ne dafa dépendre ci exécutif mën nañ ko fa def maintenant tekkiwul nag ne li nga xamante ne intéressé wu politique intéressé wu leen là-bas la justice fonctionne normalement mm-hmm, c'est pourquoi moo tax ma naan euh, dañuy gis ñaar ñetti cas rek ñu ne la justice n'est pas euh, mm-hmm. indépendante parce que ñaar ñetti cas yooyu moom moo leen di inter parce que day amaale un relent politique donc kon euh, la justice certes elle malade mais ce n'est pas un grand opinion publique mais justice bu indépendante parce que moom tamit xam na ne ay contrat la yor. Mm-hmm. yu ñu war a exécuter ainsi de suite ainsi de suite si la justice n'est pas indépendante ce sera risqué d'investir dans ce pays là. Mm-hmm. loolu moom moo tax maanaam la justice joue un rôle économique mais de stabilisateur social parce que nee na l'opportunité si les poursuites procureur mën na gis une violation à la loi pénale mu bàyyi. parce que les poursuites ne sont pas opportunes. Mm-hmm. moom moo tax waa ji ne la am na dossier yoo xamante ne moo ci teg. teg ci kuréel bi que xam nga ne. parfois certaines procédures même bu dee am na euh, lu ñu ci mën a wax mais day troubler l'ordre public à l'époque quand il le disait il il pensait à Sindiély Wade mhm. qui était câblé dans l'affaire Fesman au moment où son frère Karim était en prison le vieux Patrice Wade nga jël ñaari doomam yëpp tëj c'est problématique ah. donc looloo tax euh, ci foofu la doon waxee mais après affaire bi daf koy topp parce que ba léegi xëy na am na yoo xamante ne mi ngi euh, pris cher Oustaz Assane Seck benn homme politique Omar Ba wax la même chose que moom li mu mi ngi dox yoonam xanaa kudd bi ñëpp ko gisandoo euh, euh, Pape Ndiaye de mi ngi prison mhm. nee nañ dafa jeter le discrédit sur un acte juridictionnel mais gis nga première instance bi il y a des gens qui ont signé des chroniques pour traiter lépp lu la neex ju euh, juge ba léegi ñu ngi doxi seen soxla ce qui fait que vraiment il y a deux poids deux mesures am na justice à double vitesse et impérativement on ne peut pas dire que ni la justice n'est pas malade. n'est pas malade. diagnostic sérieuse et sans mm. complaisance.